le premier ministre alors Amadou Ba il est directeur général des impôts et domaines depuis 2006 euh, 2014 mu inc mu intégré l'armature gouvernementale en tant que ministre de l'économie et des finances Euh, bu yor post bi ba deux mille euh, ba deux mille dix neuf. Mhm. Euh, c'est sous son magistère qu'il y a eu tous les groupes consultatifs et puis mu bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom ñooy tête de file matérialisation plan Sénégal émergent deux mille dix neuf après la présidentielle ñu yóbbu ko ministère des affaires étrangères mais Covid bi moo gën a caporaliser son action ñu génne ko en deux mille vingt mu nekk à l'extérieur euh, traverser le désert. Politiquement, il a gagné Dakar en 2016 au référendum, en 2017 aux législatives, en 2019 à la présidentielle, mais euh, 2022 pour les deux élections locales et même s'il n'était pas candidat, la faute morale et politique euh, de cette défaite à, à, à, à, Dakar et aux parcelles Zasseni. 2023, il Premier ministre et puis euh, Nubari, Euh, tey jàpp nañu ne en tout cas en dehors de la l'APR beaucoup d'observateurs euh, jàpp nañu ne euh, moom mën na incarner le choix de raison bi président de la République di di wax alors chance atout handicap pour Amadou Ba handicap il peut être contesté par certains responsables de l'APR qui peuvent le combattre comme li ngay wax ni que 2014 la dugg ci politique ou 2016 précisément Euh, les gens considèrent que ce n'est pas un appel authentique, ça c'est peut-être un handicap, peut-être qui peut peser ce qu'il peut peser. Bon, euh, mais c'est selon. Euh, maintenant, atout il a fait des preuves dans les ministères où il est passé, les taux de croissance ou les performances économiques que le Sénégal a réalisées sous Amadouba dans l'histoire du Sénégal, Amoufi. xay na peut-être on se projette pour l'année prochaine avec Moustapha Ba avec l'économie du pétrole à aller à mais avant mosu fi woon am et après lui aussi amuñu woon taux de croissance ça a baissé donc c'est vous dire que en termes de performance économique xëy na am na euh, euh, lu mu lu mu indi mais toujours aussi il faut dater un choix ou dater une situation politique booy xool Amadou Ba la ñu mujj ni bu dee un parce que président de la République bu amee post bu mu mën a joxe bu ci ëpp ba ca gën a rëy mu mën koo décider jox ko nit mooy poste premier ministre am déet. Mm-hmm. amul beneen poste bu kowee premier ministre bu nekk ci sañ-sañu président bu mu mën a joxe. bi muy joxe ñëpp nekkoon nañ fi ñi nga tudd ñi ñëpp bëggoon nañ ko pare woon nañu pour loolu Amadou Ba la ko jox kon man jàpp naa ni am na lu mu yaakaar ci Amadou Ba am na lu muy séntu ci moom kon kooku a priori favorable la pour moom te nag wax dëgg yàlla aussi. période bi nga xam ni président mi ngi choisir un premier ministre jàpp naa ne ci sama xam-xam bu gàtt il se projetait à la présidentielle de 2024. ah bon. merci. Eh mais bi ñu doon wax naan il à à passer la main. parce que li ñuy wax nii président di wax dëgg yàlla bu dee euh, décision bi mu ñàkk dem yàgg na ci moom de du lu bees en quelque sorte pour xëy na. ñi nga xam ni amul nañu ay signaux yu ñu liir ci moom wala lu ñu mën a for ci seen waxtaan wala peut-être lu président rëccale ci ay waxtaan wala leneen am na ñi nga xam dara bettu leen ci am na ñi nga xam ne moo tax am na ay jamono yi nga xam ne ma déggee fi gaa yi wax waxu troisième mandat di wax ba seen dënn yi tàng man leen naka ngeen a mën a xam géntu sam bopp xam géntu sa morom yéen dangeen di lettaleel président gént mooy xamagoo lu président di def la preuve mu xëyee ni nekkul candidat xanaa lu nit ñi doon wax parce que man leen def leen ndànk lu ñëwagul naka nga nit ki mooy joxe décision joxagu ko nga bëgg ni nii lay def les gens étaient convaincus que Macky Sall day wut troisième mandat pendant que d'autres étaient persuadés qu'ils n'allaient pas demander un troisième mandat moo tax aussi il faut que euh, je peux te dire Maïmouna euh, président il se projetait sur l'horizon bien avant ces instants-là. bi muy nommé Amadou Ba premier mais oui. c'était un des choix de nomination d'un premier ministre un chef d'État il prépare sa succession et il voit et aujourd'hui xam nga lu lay wax ni le président day préparer succession ji nga fi lim ñëpp ni am nañ ay atu wala ñoom lañ gën a yaakaar quelles sont leurs positions Amadou Ba premier ministre Abdoulaye Daouda Diallo président du conseil économique et social. président d'institution kon moo di que président se dit que ñii kat hmm? ñii xëy na fii la bi mën a nekk. Abdoulaye Aly Ngouille Ndiaye ministre de l' agriculture kon président dans sa projection jàpp na ni que du génn ñii néew ma da koy génn de néew ma du ko génn aussi xaw ma lu président di décider mais bu ñuy analyser mën nañu ko liire noonu ni que kat xëy na président mi ngi doon préparer parmi ses choix pour une succession ou bien un candidat à désigner te dama la wax